sama benn grand dañ doon waxtaan quoi bi Diomaye ak Sonko di soog a falu may demee dënn naan kan mais grand mais du ñu jële général Moussa Fall du ñu ko fi jëlee dégagé ko waaye ki na dem waaye kii bëggul ma gis ma booy da ngay xale rek di jëmee dën xët-xët non kii dañ ko daax mais waa ñu koy daax dañ koy ridiculiser ba pare soo ko daax après ma ko noo grand tu raison quoi moo tax ma gisee général bi mu ñëw pale gars yi di kii muy képp naan di di teen ci koo xam ne tey jii maanaam bakkanam nga bëggoon jëlu quoi bu ñuy dem di tukki dem ay Mauritanie nga ñëw képp Israël loolu gën a loolu moo gën a loolu loolu loolu ñu dàqal sax la gën a mi xool booy yi xam ne tey tey mu ñëw tey jii loolu si dañ koy ridiculiser koo xam ne kooku nekk sa chef Israël da mujj xat quoi tu vois te c'est une c'est une manière de ñu ko ridiculiser par nag après dàq lañ ko dem tu vois donc man grand bi da ba noon xarit mais man après grand man si non grand e e eh, tu as raison quoi bu ñu ko ñëw dàq day yëmb il faut ñu mu keppal ñu kepp kepp kepp isin fi après soo ñu soog ko kii quoi beneen man leen mais sama gars mais man tukki prison laa ko jàppee parce Sénégal dafa neex ay Pogba ñu ngi ñëw di fi dëkkër ay waa section d'assaut fi la jënd kër tubaab bi parce Europe amul dara vie bi dafa monotone da ngay liggéey wàcc dugg sa kër fii nag da ngay làmb yeeg café yeeg baara mundi yeeg di daw kaso kaso parce que dara nga dul metti mooy nga am say mbokk mënoo leen gis am say doom say bàjjen mënoo leen gis nga nekk Europe mel ne fa benn moodu moodu tàmmoo liggéey loolu kaso la loolu rek kaso la quoi ko tegee sama gars yi baax na sama gars yi nag sama ay grand nantel la am sama koñ ay grand yu am macha allah quoi jaay sama gars yi